Il y a au Sénégal 37 établissements pénitentiaires pour 46 départements. Sénégal ñeent fukki département ak juróom benn la daal di am ca waxtu woowee nag prison yi fanweer la ak juróom ñaar ñëpp xam nañu Sénégal daal yaatu lool la daal di def taxit ñu bari ay jafe-jafe yu uh, bari uh, la ñu daal di am ngir rek daal di am ay kayit yu soqeekoo ci wàllum yoon uh, te ñu bari xam nañ nag am na yenn documents yi ngir nga daal di koy am rek dafay yàgg lool moo taxit ma jàpp ni état bu Sénégal dafa war a biral ay tànkam ba yenn gox goxaat yi ñu daal di fay amal li nga xamante nag moom moo di ay bërëbu àttekaay wala nag ay administration. ba képp ku soxla yoon rek daal ci euh, mën jot euh, te doo sori pour permettre aux citoyens de pouvoir accéder à la justice